bonsoir amis téléspectateurs de la télévision Futur Média gis ngeen comme ni nga xam noonu lañ leen ko tàmm waxee miroir fin d'année miroir fin d'année c'est tous les jours fi nga xam ni moom mooy ci monument de la renaissance euh, tey nag chaque jour ak ñi nga xam ni ñoom laa ci àndal tey nag ma ànd ak jumeaux yi nga xam ni ñoo gën a fashion ci télévision euh, Futur Média euh, Futur Média wala ci animation sénégalaise PNG laa àndal Pi Chérie Eva ji libre comme l'air donc ñoom lay àndal tey ñu ñëw fii ci monument de la renaissance. ma dem jox sama beneen waa ji mais ana benn jumeau bi mu ngi nii ci kaw kii mooy yore mix bi ji. ah ah. awa ji on the mix. est-ce que mu ngi cool. bro mu ngi cool yee. naka la. cool nga yéen cool ñu ngi sant bu baax nga am wala kan nga si am nga mais ji laay am ji nga ah? mooy booy bu ndaw bi célibataire wala marié bi nga non mooy célibataire bi mooy xoola ah. libre comme l'air yee kon yow pii yéen a bokk groupe ah? <laughs> yee pii xoola mu ngi cour des grands <laughs> mais ñi ñuy seetaan ñi dama leen laaj ndax célibataire yi ñoo ko yor wala marié yi ah célibataire yi wala marié yi ñan ñoo ko yor ana ñu ànd ak célibataire yi yëg di leen seen loxo ma xool ah maa leen di gis de eh, ji maa ngi dégg de ani beneen marié bi ani pii eh, ji maa ngi dégg de gars yi nee nañ Ah. marié yee ko yor. non yi nee nañ célibataire yi ñoo koy frais. non marié et puis mais xoolal pii fi mu ne. et puis. mais ani sama jumeau Aba. et puis. mais est ce que nekkul si oto Aba Aba. mais. Aba na nga def. mais maa ngi cool. jàpp waay dama moom oto bu bees. yaa Aba dama jàpp waay. yaa moom oto Aba dama jàpp jamono ji yaa moom oto fi ma nekk moo neex bu ma yàqal. fi ma nekk rek a neex. <laughs> Eh, bi bi bul taal ko oto bi waay ma si kanam waay bàyyi ma taal waay Eva nga ko aba bàyyi leen ma taal non bàyyi ma si kanam ma taal kan nga ko bëgg a may Eva ah kooku bëgg a may Eva. waaw Eva ko war a yóbbul waaw. Eva moom couleur am rouge la. couleur am rouge la de. man moom ñoo bokk couleur. ñii soog a marié donc maa ngi leen di nuyu Aba <laughs> di nuyu sama jumeau ji di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi seetaan euh, TFM euh, bienvenue bien sûr ici au monument de la Renaissance alors pour une première vous allez voir Pi Ji en compagnie de leur frère euh, Aba Aba non stress ànd ak Pi ànd ak Ji pour une heure trente minutes ici au monument de la Renaissance ça sera du lourd préparez-vous hein. yes. ne fi toog nag yow am nga chance am nga possibilité toog fii mais il a un mais le mais c'est quoi tout à l'heure on va vous donner la réponse bien sûr il y aura des numéros qui vont euh, bien sûr circuler euh, durant l'émission donc euh, ensemble amis téléspectateurs préparez-vous parce qu'il y a beaucoup de cadeaux c'est le mois de décembre et c'est à ne pas rater avec la TFM Aba aca noonu lañ koy woowee la télévision cadeau donc c'est l'émission cadeau aussi ngeen bàyyi ko et puis c'est un mois cadeau mois de décembre xam ngeen ni mois fête la waaye mois la boo xam ne dañ ciy def ay teranga yu baree baree bari et télévision Futurs Médias ne kenn du ko ci njëkk ndax koo xamul ni ñu koy def ndam la def moom moo tax e téléspectateurs yi auditeurs yi ak internautes yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci groupe bi yëpp yëpp yëpp ñu am nu ñu def ak ñoom donc mu ko waxee comme ni mu ko waxee moom pii numéro yaa ngi affiché au bas ngeen mën koy am di woote et bu leen tamit di envoyer seen ay message bu émission amee en direct ak bu amul en direct yëpp yëpp yëpp mën ngeen ci yëg seen bopp bu baax a baax a baax ñu dem ci kaw mais ji. mais waaw lan moo sama sama ba pare ñoom misaan ñoom off ak jël cinq bi <laughs> waaw eh jumeau pii pii kaay fii ma xool. ma ñëw ah. kamoon sil ok man maa duñ sàcc oto bi su ma ñëwee. non non non kaay oto bi su ma ñëwee. non kaay kaay ñu décortiquer. ok of da ngay jël susuuf ba si kaw nag nga wane 5 bi lépp bees la bu ko rus jëlal susuuf ba si kaw. waaw Aba tey foog ma noggatu ko quoi. Oh, oh, oh, foog ma ko door ko 10-0. kan moo leen a gagné tey <laughs> bii mooy gagné wala ji wala Aba. ayca ah, téléspectateur yi ñooy wax kan mooy gagné. ayca gars yi gars dañuy ubbi antenne bi tey. Eh, yéenay wax kan moo gagné gars yi si suuf ngay commencé nag. Eh, eh, ci suuf ñu yegg ba ci kaw. ok jël 5 une. deux. trois of yéegal of yéegal. <laughs> yaa ngi yéeg of jëlee lépp vous serez servis aujourd'hui parce qu'il y a trois. trois animateurs bien sûr de la TFM mais des animateurs pas tout à fait comme les autres donc les quatorze régions du Sénégal en train de nous regarder ce soir vous serez servis c'est à ne pas zapper woo message leen seen xarit yi ne leen Pi ak Ji ak Abba en direct sur la TFM aujourd'hui ça sera du lourd. ayca mu ngi noonu ni ko pi waxee ak ji ni mu koy jàppee temps donc noonu lay demee xam ngeen ni dina métti lool lool parce que c'est très normal heure bi heure télé la mais heure bi heure yëngatu la heure jaxase la heure def lu ñu neex la donc heure. jàppise la yéen ma ko gën a xam dinañ waxtaan ci hip hop waaye dinañ waxtaan ci li nga xam ni moom mooy yëfi ado lan la xale wala def ak xale yi nga xam ne ñoo ne ci réseaux sociaux yi yooyu yëpp dañ koy waxtaanee tey ci miroir fin d'année mu nekk web spécial mercredi ak les jumeaux waaj leen xam ni chaque mercredi yëfu xale la ah yëfu def lu ñu neex la ah di di di di di jaxase ah. yaa affaire de jeune la mais fu ñu njëkk a génn. non mais instant yi tey que des nouveautés des hits des exclusivités dinañ seetaan yi nga xamante ne yu bees tàkk la yi démb la génn yi il y a même pas une semaine donc beaucoup d'exclusivité ce soir mais avant ça foog ñu chauffer un tout petit peu. soxna yi sori leen oto bi tuuti waaye sama oto la. ayca yokkal sama son tuuti. ayca yokkal suñu son. yokkoo yokkoo tuuti. jëm man damaa jëm man fii damaa jëm man fii damaa jëm man. donc nag eh, donc. loolu am na si la woon rek ah tey du yomb ah. mais Abba avec des hits ce soir lundi matin. mardi matin mercredi matin dama seetaan yeewu leen donc euh, j'ai vu beaucoup de cadeaux bien sûr euh, pour les téléspectateurs de la TFM dama bëggoon tey am na ñoo xamante ne c'est une première ñu ngi door a seetaan bien sûr euh, li nga xamante ne moom la waa GFM may seen ay soppe bëgg naa tamit avant ñuy démarrer suñu show ñu expliquer gars yi teranga yi nga xamante ne ñoo nekk fii tey si plateau bu bu bu bu nice bi. ah c'est un nouveau concept boo xam ni le groupe Futur Média puis ñoo ko indi. Mhm. bi mu ngi tudd Teranga Sénégal. Teranga Sénégal. donc bu ñu ko waxee euh, dañoo jël buum delloo ko ci mbooy gi parce que lu ñu tàmm la euh, lu ñu xam la ci réew mi et puis jël réew mi nag daal di koy def euh, li nga xam ni mooy ay régions quatorze régions yi nga xam ni moo ci réew mi bu ci nekk rek ñu wan la teranga bi nga xam ni moom moo nekk ci biir et du ñu yem foofu jël ay meubles daal la koy may jël li nga xam ni moom mooy oto ba li nga xam ni mooy gros lot moom tamit mu bokk ci looy jël li nga xam ni moom mooy ay yu lépp rek loo xam ni rek nit da koy soxla te mu nekk ci biir kër wala di nekk ci ne ay li xale jigéen ñi ay parure en or. xam nga ni iPhone bii moom mujjee génn 11 pro bi la c'est le groupe Futur Média. Ah mooy def yi yëpp. lii si cadeau yi la bokk mais ay xoolal ay lii ay ay ay ay ay yoo xam mais naa fi lal lal laa fi gis lal ay lépp ci biir xaar xaar ma ñëw waay xaar ma dem xool kay fi ñu toll nii xaar ma dem a lal man fii ay taxaw di la yëndu fii ah pii xaaral mo xool waay. Ah. waa waaw dafa am ñegenaay. pii oh. <laughs> xaaral ma plongé damay xool plongé kaana. pii oh. pii mais laa wax si plongé kaana bi. mais mais pii su Eva ñëwoon foofu. ah. Eva bu ñëwoon foofu. bii non Aba bul wax loolu bul wax loolu. ah bul wax loolu yaa direct. te dafa benn célibataire bu nekk sa ginnaaw <laughs> voilà. pii rek rus ko. pii xalaatoo foofu amoo leen loo fa xalaat. mais Aba lal bi nooy na de. <laughs> Ah? ah côté bi dafa wéet de Aba côté bi wéet na de. pii pii. ji. waaw mais da ngay ji lal bi ku ko nar a gagné. la question Aba. mais jël armoire alors comment faire pour gagner le lit comment faire pour gagner bien sûr euh, tout cela Abba. ayca mën nañuy envoyer SMS euh, ci heure bu leen neexee ñu def ko ci li nga xam ni moom mooy. 22 025 wala ñu woote ci numéro yi nga xam mooy 88 628 22 22 wala 88 628 76 76 wala 88 628 14 14 loolu yëpp wootee rek moo xam émission bi dem en direct wala moo xam émission bi nekk en différé wala moo xam ñu fay télé bi kenn seetaanul à tout moment booy wootee mën nga ci yëg sa bopp ci li nga xam ni moom la groupe Futur Médiathèque. mais li nga xam ni mooy teranga Sénégal mais gis nga fu ma toog léegi est-ce que. ah nga changé place. table à manger. Ah. ah. mais xoolal ma table à manger bi. ah puis. waaw y' a papa y' a maman bien sûr y' a madame y' a les enfants y' a tout le monde. qui peuvent s'asseoir ici. alors puis ñoo ngi wax ñi nga xamante ne dëkkee nañ boor yi ay Wakaam ay Almadi mën ngeen ñëw seetaan ah. c'est l'émission fun en mhm. plein air monument de la renaissance ngeen gis Pi ngeen gis J ngeen gis mhm. Aba. ça se passe ici. tamit damay déplacé wu sax. dama am salon boo xam ne dafa am télé. bu leen neexee ngeen toog seen kër seetaan bu leen seen kër doyul. Aba ngeen ñëw fekk ñu fi nga xam ne fi la ñu nekk di seetaan tamit mais Pi. tey Liverpool day fubal. dama am salon am tele da ngay seetaan ku la neex. tey Liverpool day fubal. même PSG day football tey. Sadio Mané waaw. gis nga télé buñ ma jox. yaa ngi seetaan. gis nga salon bi. yaa ngi toog lii nag laa bëgg a nag man loolu nga bëgg lii kese laa bëgg a parce que dama bëgg fubal foo koy yo yow da nga bëgg fubal dañu bëgg fubal ji bëgg fubal dañu bëgg fubal yaa ngi comprendre <laughs> <laughs> donc amis téléspectateurs gis ngeen salon salon bi nga xamante toog tey c'est ngeen am euh, euh, ko comme Aba nu ko waxee 88 la 628 22 22 88 628 04 05 88 628 99 90 pour nous joindre en direct dans l'émission spéciale bien sûr Teranga Sénégal Aba mais puis yaa ngi ci football ah ñun ñëpp dañu bëgg football ah ñun ñëpp ay ay ay footballeur lañu sax mën naa ne ay sportif lañ. mais noo gisee Sadio Mané ñàkk jox bi ko ñàkk jox ballon d'or bi loolu garaawul sax ci gars yi quoi. mais jël gi mu jël numéro 4 loolu moo métti. sama copain tëjil ñu suñu son bi fii. waay waay waay gars yi tuuti si benn affaire de Sadio Mané nii. waaw waaw waaw waaw quand même. ubbi nañ suñu son gars yi eh laa lay tegal nii. looy mel kuy liggéey RTS ni yow. <laughs> ok donc Abba question boobu bien sûr c'est important de répondre à cela euh, pourquoi parce que sénégalais yi ñi doon xaar euh, résultat yi dañu bëri woon ñi foogoon ne Sadio euh, dina ko jël tamit bëri woon nañ tey ñu jox ko Messi. Euh, Messi euh, bokk na si deux meilleurs joueurs du monde entier euh, tey suñ ko joxee du bett kenn parce que il le mérite mais si saison bi la ñu wax saison 2019 Sadio Mané dafa prouver dafa dem Ligue des champions jël pot bi comprendre dem Coupe d'Afrique dem ba finale super coupe Euh, mu mu jël ko euh, participer si but bi contre Chelsea euh, tu vois donc tey mu am ay buts yoo xamante ne car macha allah dugal na ko si championnat bi donc doon ko meilleur buteur bien sûr ak Salah ak Aubameyang bien sûr te moom amul benn boo xam ne dugalee na ko penalty tey ñan ñoo voté c'est des journalistes ñan ñoo voté c'est c'est c'est aujourd'hui des des entraîneurs des entraîneurs des capitaines d'équipe qui ont voté donc tey benn 200 personnes soo leen jëlee ne tànn leen ku leen neex tey su ma dëkkee Sénégal man damay tànn waa Sénégal. waaw mais tamit mais tamit problème bi mooy. Euh, problème bi mooy gars yi dañ na wax ni ñi voté Afrique kenn votelul Sadio Mané Messi la ñu voteel mais est-ce que buñ ko doon xool ci Afrique kii la ñu. voteel xool Europe. kële la ñuy votel est-ce que Afrique dina am dara. ok ça c'est ça ça c'est à souligner rek la am. ñoom lañ jox pour ñu war a Europe ñaataa fa nekk. ok mais en du Sud ñaataa fa nekk. lu ñu mën a wax ñun daal suñu ballon d'or mooy Sadio Mané te c'est une fierté le fait que mu euh, parce que nekkul tamit lu yomb quoi. Mhm. benn bokk si. joobaat rek ah, man moom je suis pas d'accord mais joobaat rek joobaat rek 4 moom ko woon jël moom. ok bu jëlul P moo waroon am na ay ay crise ñoo ñëpp moo donc loolu la loolu la gars yi wax loolu donc mënuñ si dara. donc Sadio wax mais looy wax ci ñàkk dem bi mu ñàkk dem. <laughs> ñàkk dem bi c' était Sadio Mané moo normal c' était normal Sadio Pank. nee na dafa am match mercredi quoi <laughs> ah, naan bu année bii di ñëw mën naa dem ah, pourquoi pas mën naa ko jël Sadio Pank la man loolu doo koy bëgg. ok donc am na ñuy wax saajo dafa yaru ba mu ëpp moo tax euh, jëlul ballon d'or bi euh, côté média tamit il est un peu truc euh, par rapport à Cristiano Ronaldo par rapport à Messi côté sponsoring et tout donc il est dans son coin peut-être que tamit am na benn euh, d'une part aussi facteur bi tamit xaw na xaw xaw mais bi ma xamee ni tey yéen laay am euh, PNJ xam ni ngeen mel ci hip hop ak ni ngeen mel ci la jeunesse ah ni ngeen ci influent wee lool lool lool dama wuti ay sama ay renseignement xool na clash yi nga xam ni moo am ci ci hip hop bi old school yi ak no school yëpp yëpp yëpp ñu ngi laalante fi ñu toll nii na naa bërki démb Cap de Seus laalante ak ki nga xam ne mooy Books bu seen kumpa loolu jeex tey ma gis on lyrical di laalante ak ki nga xam ne moom mooy dib dund gis mm-hmm. après bi Ngaaka Blindé génnee ba wax waxam yooyu dañuy dem xool suñu premier clip te ñëwaat léegi waxtaan ci ak jeunes yi ak li nga xam ne mooy xew ci réseaux sociaux yi. Mhm. ay xale yoo xam ni amuñu émission télé amuñu ko rajo kenn xamu leen mais dañoo am influence bu bëree bëree bëri ci réseaux sociaux yi lan moo koy waral on est jeune mhm. on va parler jeune et nañu dem xool clip te ñëwaat léegi yeggal suñu waxtaan. miroir fin d'année let's go ak les jumeaux. que des nouveautés ce soir c'est parti Mia. am dañuy ñëw parce que dañuy gis seen ay ah c'est très normal PNJ bu àndee ak Abar No Stress lii rek la mën a joxe donc c'est très normal te émission bi euh, lay jeex donc fii ak mun ngeen ñu fekk fii si monument de la renaissance ah. ngeen assister euh, émission bi participer émission bi ak euh, les PNJ et Abba di wax ne tey nag amuñu invité ah d' habitude da ngeen gis chaque mercredi PNG. di invité artiste non non mais tey tey suñu star. am ngeen invité voilà non tey am ngeen invité quand même man maa invité. non waaw moom la fa laay ñëw fa laay ñëw tey suñu star moo nekk nii ah. donc c' est une première euh, TFM Pi ak Ji ak Aba defandoo benn émission ensemble. te kii suñu frère la de longtemps tey ñu nar a partager émission bi le mois de décembre en tous les mercredis bien sûr avec lui. même c' est un immense c' est un immense plaisir Ji. voilà donc tey. Euh, public bi ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan tamit ñoom ñoom moom émission bi mm-hmm. sànq ba léegi gars message donc mun ngeen woote tamit euh, mm-hmm. ngeen waxtaan ak Pi waxtaan ak Ji mm-hmm. waxtaan ak euh, Abba no stress bien sûr avec des lots à plus finir euh, à gagner today en live avec the Twin City DJ PNG Abba on vient de regarder bien sûr le clip de Akhlou Brick euh, bi nga xamante ne lu bees la tamit. Euh, Hello un son qui cartonne aimé par les jeunes branchés les mélomanes donc de passage euh, waa Mbour ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Akhlou Brick bientôt dinañ ñëw fii si plateau parce que ñoom tamit ñoo ngi waajal benn affaire bu dóob biir Mbour. en tout cas dañu koy waajal bu baax a baax ñi am événement ñëpp dañuy jaar ci miroir fin d'année donc ñi nga xam ni dañuy waajal bés bu rëy yëpp dañuy jàll ci miroir fin d'année donc c'est très normal et que buy ñëwaat et mois de. quinze jours mooy 2 mois quinze jours. moom la ñuy ah def fi ah waay moom la ñuy def fii nekk fii di def lu ñu neex fii. kon ba février la. dañ koy yëngal ba février léegi fi ñu toll nii. Ah. li xew ci mouvement hip hop bi. et eh, damaa gis waa fu fukkeen kooku yónni seen benn booy cap de sës mu clash ki nga xam ne mooy books bu seen kumpa ñu <laughs> yaakaar ni old school rek ñooy clashante mais dañu gis récent euh, bërki Dembo Ndiaye c'est très récent ñu gis euh, ki nga xam ne mooy wan mhm. daal di clash dip ñooy dafa tontu dip ok <laughs> mais loolu hip bi. hip yi nu mu demee noonu. puis man personnellement en tant que animateur si tout le monde est sage si tout le monde est dans son coin il y a pas de bruit il pas de buzz donc c'est c'est pas ça le hip hop dafa mel ni tey nga ne làmb rek ñëpp euh, benn Balla Gaye nekk si coin am benn Modou nekk si coin am kenn waxul dara kenn sànniwul benn affaire du am caaj. Euh, tey pour man lii li lii caaj la lii xoromu xoromu gem bi la quoi tey soo leen ko naree xañ wala soo leen naree wax copain nga war a toog sa gàlle yaru day yambare a foog foog muy kaanawe quoi man pour man foog muy kaana te kaana nu muy mel kaana day soxor amee ah, kaana day soxor mais ñu gis euh, wan ak euh, dip ñoo bokkoon nekkandoo foofu nga xam ni mooy ci waa euh, ñële naka la tudd fii dip nekk waa reptile ah waa reptile mm-hmm. ñu nekkoon fa wan génn clash ko en 2016 mm-hmm. ñu demaat demaat àdduna di dox ba 2019 dip génne album clash wan ak Ngaaka Blindé yëpp parce que nee na moom faalewul ay jël ay xaw ma ay championnat lañ jël xaw ma booy ay lan lañ jël nee na moom faalewul yooyu donc booy bi dégg ko uh-huh. génn mais clash bi dafa direct ay clash yoo xam dañuy wiiri mais booy bi dafa Dominique Dip dundu gis jaar si tour bi <laughs> carrément <laughs> mooy li euh, il faut oser ku nekk ak sa style ku nekk sa manière bi nga bi ngay jaayee sa produit ñoom c'est leur manière à eux donc euh, on a qu'à respecter cela parce tey Abba dafa mel tey xam nga samedi am nañ benn tournoi presse a fekk fa waa RDV fekk fa waa 2S et autres waaye nga ñëw sóob ñàngal xam nga. ne leen yéen xoolal fii ñooy numéro un dans tous les domaines. xam nga wàññi leen. Ah. waaw booy bi lu tax muy wax lii. tu ah. vois fan la ko teg. waaw ah. tu yooyu mooy neexal. jéem bi mooy bataille psychologique mooy bataille na ku ne ci ligne xool kookal la ñu jël ko mais puis téema ko bàyyi ak yow téema laa bàyyi nga gérer. ji yow yaa ñëkk joxe cadeau bi tey bàyyi ma jox ko ji. célibataire célibataire. ah bon <laughs> honneur aux célibataires ah. suñu boy bi. parce que Abba il est marié puis il est marié. suñu boy bi. Ah alors il ne reste que J il ne reste que J si plateau bi. ayca waaw bonsoir. allo. allo oui. oui bonsoir le monsieur. salaamaaleykum. maaleykum salaam noo tudd. Gora Diop. Naga. Gora Diop. Gora Gora la tudd. Gora fan nga ñu woowee Gora. may woote Touba. Touba la nekk Touba yeah góor a naka Touba mooy cool. waa ñu ngi sant yàlla bu baax. naka émission bi yéen a ngi koy enjoy bu baax PG. waaw ñu ngi koy enjoy bu baax a baax sax. moo ngi naay ah. sax. waaw loolu xanaa. mais sànq dañ ne woon gars yi pour ñu voter quoi si ñetti 5 yi ban moo si dàq quoi. waaw si ñetti 5 yi. waaw kan moo dàqale 5 quoi. waaw xam nga man célibataire laay woote la Eh, eh, eh. nee na moom célibataire la kon yow yaa dàqale. jaajëf gars yi bu ñu génnee nga fi waxul. Mia yaa ngi dégg 1-0. waxoo fi dara nga fi waxul <laughs> waxoo fi dara. allez les célibataires. <laughs> am nga gel. gel non non gel. <laughs> lu loolu yow. lu loolu gel man la gel nga ma gel. ah non mais dama doon jéem a xool ndax mën naa la may or bi mais comme amoo gel. tànnal ko foofu tànnal ko foofu. léegi est-ce que yaa ngi may gis. maa yaa ngi may xool. Ah. yaa ngi may seen. balaa ko waxoon tafaatin yaa may xool. <laughs> léegi boy. waaw. ça notre cher pays. Mm-hmm. et ça c'est les quatorze euh, régions. du Sénégal. du Sénégal donc. yow ban région laa lay ubbil yow nga xool lan moo fa nekk nga xam ni yaa ko moom. ah Diourbel laay ubbi dafa Diourbel laay ubbi. eh parce que foofu nga dëkk. waaw. bëggoo ñu ubbil la Kolda. Kolda ba ubbil la Kaolack. bi rek. bëggoo Louga. ubbil la Diourbel bi. booy Matam neex na de. waaye fukki penc ak ñaar nag ndakaaru jël job ok ok xaaral sax ma maanu man te ko fi wax ma ubbil ko ko. yee ubbi naa pii attention Diourbel. ubbi naa Diourbel xaw ma lan moo nekk ci biir léegi. waaw. lan nga xalaat ni moo nekk ci biir. ah lu fa nekk baax na. suufu lan. lu fa nekk baax na. mais lan nga bëgg a exactement yow loo bëgg a man. xaalis nga bëgga gagné wala portable wala pari d'or wala salon wala oto. ah oto oto bi bëgg donc oto bi moom tirage lay doon moom mooy doon euh, cagnotte bu ngand bi. da ngay lekk kew. Ah. awa Thiaw waaw waaw <laughs> awa xaaral awa ngay tëji dañuy def suñu son suspense bi aja tëjil fii aja ubbil ñu son bi ubbil ñu son bi ñu def suñu son suspense aja doo lekk kew ak sama technicien mi yaa doo lekk kew de da ngeen lekk guro <laughs> awa waaw naa lekk guro waaw petit cola nag bëgg nga ko <laughs> Ah waaw duñu ma dara. ayca dama lay bàyyi ak fii mu wax la lan nga xam ni moom la la télévision Futur Média may nga xam ni am nga bon boo xam ni nii la valeur bi toll nga war ko jëli foofu nga xam ni moom moo la neex. ayca fii doxal ak moom ayca donc euh, waa Diourbel son bi mooy daw noonu. waaw ah, yokkal suñu retour tuuti waay ah. yokkal retour bi. mais bu ñu ok. alors waa Diourbel góor a c'est comme ça. waaw góor am nga benn bon wu mille francs. tàccu leen loolu s'il vous plaît. am nga bon wu mille francs boo xamante ne war nga ko war a mën a jëli Obala. da ngay dem Obala bien sûr soo demee foofu nga xool lu la neex luy jar cinquante mille luy jar soixante quinze mille luy jar quatre vingt dix mille nga jël lu la neex foofu ba mu mat mille. nga dem jëndal euh, bien sûr nga jox ko seen waa kër nga wax euh, xale yi ne voilà vos cadeaux bien sûr euh, pour Noël pour les fêtes de fin d'année donc félicitations à toi. merci ok jaajëf. ayca góor léegi bul raccroché mm. gars yi jël sa numéro téléphone ñu wax la naka ngay def pour jël sa cadeau d'accord. donc merci à lui Abba. acca yéen tamit yéen ñi ñuy seetaan mën ngeen a continuer di woote ci numéro yooyu nga xam ni mu ngi affiché wu foofu mhm. euh, te xam ni émission bi peut-être seen émission la mais la télévision c'est une télé cadeau yéen a ko moom donc woot leen ngeen jël lu leen neex et puis envoyé ay SMS et bu leen tay benn benn yoon fi ñu nekkoon dafa mel ni baax na. iPhone 11 Abba lii lan la. kooku bëgg Eva. ah eh, indi li eh. xaar ma dem eh, si sama caméra non Abba xaaral alors tey su ma nekkoon benn téléspectateur di seetaan émission gis pii gis ji gis aba ma gis ne lii dama ko war a gagné iPhone 11 Pro. waaw mais d'habitude ça coûte 900 à 1 million. 1 million mais tey waa TFM waa GFM maye ko nii. waaw woote rek ñu may la. waaw mais Aba est-ce que du ma la fi bàyyi yow ak ji dem woote ji. fooy woote. ah mais Aba. dama war a fêter dans une semaine sama un an de mariage. yow kan amagu ah. amaguma cadeau. Ah. léegi def leen nii. Ah. xaar rek juróom kii bëgg na lu yomb de. xaar rek. xaar rek. maa ngi dégg nag maa ngi ñëw maa ngi ñëw Aba maa ngi ñëw <laughs> bàyyi ma dem woote ji xam naa witti bi. non animateur bi bokkul ci ay non c'est pas possible ça. kër gi non dañ lay seet seegaat la. gars yi xoolal. animateur amul droit woote ñoom ñoom lañ jël seen numéro yi. <laughs> téléspectateur auditeur. gars yàq nañu émission bi internaute ñooñu ñoo moom cadeau yi ah. c'est la télévision Futur Média télé askan wi donc nag fi ñu toll nii ñu ngi woon ci euh, clashante bi am ci bopp bi. Mhm. mais dafa mel ni ji booy bi génnee album euh, clip bu bees. ki clashul kenn de. c'est le Wally Seck du mouvement hip hop. waaw ñu koy woowee Samba Peuzzi from euh, Reptile Music moom tamit euh, clip bu bees tàkk la je pense que démb rek la génn ah. mm-hmm. donc tey ngeen ko nar a njëkk seetaan fii bien sûr. en ah, exclusivité en exclusivité. yow noo ko wooyee nga ne Aba. c'est le Wally Seck noo ko wooyee booy. du mouvement hip hop. ok c'est le Wally Seck du mouvement hip hop ñoom ah. gars yi noonu lañu koy wooyee. ni muy solo. ni muy solo ni mu. réewee ak ni muy wooyee noonu ma booy wooy ko noonu mais avant ñu dem ci moom parce que uh-huh. waxaguñu sax euh, gars yi di bousculer pour xool ko se en exclusivité uh-huh. dañ koy denc ba fin émission bi léegi nag man damaa bëgg ngeen may ma clip parce que man comme euh, <laughs> retro la damaa bëgg ñu anciens yi ah. ma seetaan leen xool ñu dem xool daara ji te ñëwaat léegi ci plateau bi ayce daara ji daara ji nga bëgg seetaan daara ji laa bëgg seetaan mais est mi yaa pare na non pare na daara ji tamit euh, ñoom génne nañ tout récemment lu bees hmm. donc bàyyiwuñ ko booy tamit sama génération man. te ñoo ngi bu dope on va regarder bien sûr ce joli clip euh, du euh, Family. Family. Jamono exclusivité aussi comme nu mu leen ko waxee tey euh, que des hits des exclusivités bien sûr avec euh, Daara J Family hein. vous serez servi avec de la bonne zik avec Pi avec J avec euh, Abba non stress bien sûr Abba c'est le mois de décembre comme euh, chaque année PNG ni ñu koy faral di defee am na benn tournée boo xamante ne PNG dañ koy maye ci région yi donc on va démarrer bien sûr le 24 décembre mm-hmm. voilà donc PNG euh, dinañ dem Mbour voilà au niveau du euh, King Club euh, de Saly. mooy nga xam ne ay guichet fermé rek la. yaa soirée yu ma gën a noo am ngeen xaalis nag. voilà loolu ça ay ñaata at yéen a ngi koy def. waaw ça fait ñoo ngi koy def. am ngeen ah. xaalis macha allah franchement ça plaisir. le fait que yi nga xamante ne ñoo ngi ñuy seetaan saa yi ñu wootee nii dem si région yi gars yi dañuy wuy si en masse surtout les jeunes les mélomanes les connaisseurs gars yi def fashion def 5C. ñëw yaa ma gën a noo ak décembre bi nii donc 24 décembre ñoo ngi Saly le 25 ñoo ngi Dakar Dakar. au ma sëppi fa la ñuy yem. le 26 décembre euh, région yi ana fii Aba. Fatick nekk nii donc waa Fatick le PNG ñu foofu Aba après da nga région ngay tànn ànd ak jumeaux yi gani. après da nga région ngay tànn pour ànd ak jumeaux yi. ban région laay tànn pour ànd ak yéen yi. voilà le 26 ñu ngi Fatick le 27 wan ma Thiès. le 27 ñoo ngi Thiès ah. waaw Thiès Sams Prestige de Thiès. Ah voilà yéen a ngi sama place ba Sams. ah bon. non Sams. waaw xam naa Sams. non Sams samedi lañ fa nekk le 28. samedi décembre. xam naa sama waaj a ana Thiès fii voilà mu ngi nii. l'homme Baye Serigne. donc samedi 28 PNJ ñu ngi Thiès. ana Saint-Louis ma xool. Saint-Louis ngi noonu ci wet gi. Saint-Louis voilà ana mu. voilà mu ngi nii donc le 27 Saint-Louis le 28 Thiès ani Kaolack. yaa ngi Kaolack est-ce que xam nga ne PNJ Kaolack lañu yaroo. ah bon le dimanche ngeen yaroo yéen. Kaolack non fan ci Kaolack. lew na man lew na laa yoro sérieux mais tàccu leen loolu waaye tàccu leen loolu waaye tàccu leen loolu waaye mais xam nga Kaolack lan la gën a bëri foofu ah Kaolack lan la gën a bëri foofu xorom moo tax ngeen xoromu <laughs> moo tax ñu neex xorom <laughs> kon ñetti waa Kaolack ñoo fi nekk le dimanche 29 décembre PNJ euh, ñu ngi Kaolack euh, bien sûr mais dafa am ñaari date yoo xamante ne loolu kenn du laal PNJ lu ñu bëri bëri programme yëpp le premier janvier ak le 4. Youssou Ndour. Oh! yee premier janvier ak 4 salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def soxna si. ñu ngi noo tudd ak foo ñuy woowee. maa ngi tudd Soda Thioune Wakaam. yaa ngi tudd nan. Soda Thioune Wakaam. fan nga dëkk. Wakaam Wakaam. yow da ngaa bëgg ay woote rek yow ah. mënoon ngaa ñëw. Eh, nekkul moom la ñuy séen kaw terrasse bi nii yaa taxaw na la wala. yow yaay woote fe <laughs> mën na ne de. ah. na nga def. ma na nekk. waaye yaa sol lu rouge li. <laughs> du man. ah wala gars yaa ngi tourné ñoom ñoom di xool. <laughs> yaa leetu ay tibaale. aba yaa ngi dox yaa ngi dox loo élèves de élèves yaa ngi tourné di xool. allo. allo mais ci loo nekk ana waa Wakam. ah. ma ne ci loo nekk yaa ni man yoo seet ne yaa leetu ay. Tibaale Tibaale. Eh, yaa wax lu yàgg Tibaale. Tibaale waaw am Datta tamit <laughs> am na Tibaale am Datta léegi am mëgg ay mëgg. waaw ay mëgg yu fort lan moo lan moo waral sa woote. da nga bëgg a gagné. est-ce que du ma la may lii est-ce que du ma la may lii yow. yow lan nga bëgg a gagné yow. enjumons yi enjumons yi. Eh, est-ce que du ma ko may lii. eh Aba foo jëm que du ma ko may lii. Aba fooy jëm. kii que du ma ko may lii. ah mais les jumeaux. waaw Wakaam. laajal leen ma lu mu bëgg. si lan nga bëgg ñu may la si suñu teraanga yi. lan laa bëgg ngeen may ma waaw oto bi oto bi. oto bi rek nga bëgg. oto ah? bi waaw. oto bi kese nga la. ak gis nga Aba mu ngi lay ah. dafa mel ne Aba sa xarit la de mu ngi lay feccal de. aba aba borom baax la. ok léegi rapidement balaa sa crédit di jeex. dañuy wax ci région yi ci 14 régions yi ban région nga bëgg ñu ubbil la boîte bi ñu xool euh, ban cadeau moo fa nekk ci biir ñu wax la ko. ban région. waaw. Kaolack Kaolack. ñu ubbil la Kaolack. aba ci Kaolack la tànn suñu dëkk bi. da bëgg lan nga bëgg xorom. non nee na ngeen ubbi Kaolack bi ñu xool. ah xorom fa am de xorom. Aba kaay ubbi. moo ah. kaay ubbi. puis man nga taamu ci buggi waaw. puis <laughs> man nga bëgg ma ubbi Kaolack. waaw kaay ubbi Kaolack. ah te yow ubbi gi man ak maa la juddoo ci kaw voilà Kaolack comme que yow fa nga dëkkoon. ah waaye yéen ak waaye ma waaye ma ubbi Kaolack. allez Aba <laughs> non. jël bi ngay ubbi eh, Kaolack Aba ngi ubbi Kaolack ay ay l'histoire retiendra Fatou Niancane l'histoire retiendra Aba ngi ubbi Kaolack lay la. soxna si ñu ubbi. <laughs> ah. <laughs> ay Kaolack ubbeeku na waay ana Anne Marie. ayca Kaolack ubbeeku na de. <laughs> alors Abba. waa Wakaam nee pii waaw. am. ubbi nañu Kaolack léegi mën ngaa wax. ñu daaji. lan moo nekk biir Kaolack. waaw. waa ñu daaji. ah waa dafa mel ni dal nga si de. Ah. xam nga ñaata nga gagné. Ah. fii nga cinquante mille francs. mille francs nga woote même pas deux mille francs. Ah, aba am kontaan aba kontaan mille yaa ngi nii. ayca fukki la de. Ah, sénégalais yi ñu ngi seetaan ayca. cinq dix quinze vingt vingt cinq trente trente cinq 45 et 50 000 bravo tàccu leen ko waay. nii a demee ah. tey ay cadeau on n'a plus fini. ayca joxal sa numéro si suuf d'accord. bu raccroché ñu jël la suuf d'accord. ayca yéen tamit yéen ñi seetaan mën ngeen di ngeen def comme moom donc moom mi dëkk Wakaam ngeen continuer di woote te xam ni c'est ça lii mooy miroir fin d'année fin d'année euh, euh, day cadeau fin d'année euh, de beaucoup de fêtes donc fin d'année ngeen yëg ci seen bopp bu baax a baax a baax fii ci biir télévision Futur Média Abba ak les jumeaux mercredi ci biir miroir fin d'année c'est très normal. Adji mais Abba on est gâté là aujourd'hui cent mille francs lañ maye léegi cinquante mille francs. et puis yu yu yu naay si ba léegi nii ñëwaguñ si. et ba tey King FM ñëwagul. ba tey RFM ñëwagul fépp la ñuy maye partout même si les réseaux sociaux dañu fay maye c' est un groupe c' est grand groupe c' très normal. mais 50 000 bu mu gagné bi am na possibilité bokk si tirage auto bi. mais yow boo wootee rek. waaw sa appel bu duggee rek. mooy am nga possibilité bokk ci tirage auto bi. salon bi lii bi. mooy grolo yi lépp loolu mooy grolo yi. ok bul tàyyi woote wooteel et puis ngay envoyé say message ñëppay gagné. mais damay dégg ne chaque dimanche après journal dina am benn tirage tirage boobu tirage yu lan la. bu mag tirage benn loo bu mag mais bële mooy grolo bi mais chaque dimanche après journal dinañu xool loo bu mag fii daal di koy joxe mu nekk tirage bi mais bee mooy daj dëpp gi. mooy jackpot bi mooy jackpot bi jackpot loo bu mag bi. alors puis euh, j'en profite euh, pour euh, souhaiter anniversaire à tous les natifs de ce jour. jour ñi nga xamante ne ñoo ngi suivre via le net euh, la page Facebook ou bien via Instagram tamit ñi nga xamante ne sànq PNG ah Aba dugal nañ benn affaire délire nii. vidéo bu waaw ñu dugal Instagram moo def buzz actuellement nii. foofu la jëm ci. kii euh, Hajara la tudd elle fête son anniv happy birthday à Hajara Badou Pressea aussi joyeux anniversaire happy birthday à tous les natifs. à papa papa bu Tim Kennedy papa Tim Kennedy donc ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre via Instagram bàyyi ma jàllale sama boss ba pare. aba ah PNG euh, officiel bien sûr Instagram donc fa nekk nii actuellement di lire les textos voilà. Ah, via le snap c'est que euh, c'est que man dama la c'est que la waaxu di wax waxu Instagram rek laa nekk ni Instagram live laa dugg nii live en direct biir Instagram donc yéen ngi ci biir li nga xam ni moom mooy miroir fin d'année ah sur la télévision Futurs Médias fii ngeen di am fii <laughs> fële ngeen am fi pii fii ngeen donc c'est très normal c'est ça la télévision Futurs Médias donc bu nu koy wax non mais kon ñoo ngi en direct nii yéen ngi en direct nii kaay kaay kaay pii ngi en direct nii Instagram booy baa nañ télé bi ñu ngi nii ci Instagram Instagram mais. mais ça déjà léegi nga ko kii yaa ngi 800 personnes. mais yow yii def man ay kii man Instagram bi dama cee bari doole mais yéen léegi. <laughs> léegi ñun ay animateurs lañ. ñun dañ ñu xam ñuy animé nit ñi xam ñu xàmmee ñu et mais réseaux sociaux yi dañu gis ne mu ngi am doole nank par nank. et que da nga ciy gis ñoo xam ni dañ ciy influent lool lool lool et que euh, nekk ñu ay nit ñu nit ñi xam. via réseaux sociaux yi lañ leen di xamee lan mooy waral loolu. ok des des cas comme euh, Diaw Ketchup. comme jaw comme jaw jaw jaw ci réseau yi la ñëwee sax ne ay mais en fait euh, Abba fu muy waxee par exemple benn Modou benn simple Modou wala benn simple Fatou nga xamante ne am na buzz si surtout Fatou waaw benn Fatou comme par exemple Abba ñëpp xam nañ ne naturellement Abba daf ko bëgg dafa bëgg lu rafet dafa bëgg lu taaru benn Fatou ah ah iPhone ji ah. Eh, non mais Abba da nga lu rafet bañ lu rafet kan mooy bañ lu rafet non non mu jël yow épargne la parce que yow tu son jumeau man mu may euh, man man man mu may exposé naan ma aba daa bëgg faatu lan laa bëgg ci faatu. non da nga bëgg lu rafet la waaw bëgg lu neex xam nga gars yi dugal Instagram duñu dugal lu ñaaw. <laughs> comprendre na léegi dafa bëgg benn aba su gisee ne waaw. faatu def benn xam nga def. waaw fëlaale noonu. yéen xale yi aj ko yenn saa ñu aj ko ba ca kaw. waaw aj ko mm. wane jumelle yi nii xam nga yaa ma gën a noo quoi. <laughs> léegi dafa bëgg kooku day bëri ay. ay ay ay ay wax xale la ñuy demee noonu quoi loolay waral buzz bi affaire yu demee noonu quoi. waaw ñoom waa mais ñoom waa mais <laughs> daa ah, ji ah, ji maa ngi lay dégg nga ñu wane am na ku nekk ah, dee leen bàyyi xel seen seen téléphone. eh yow man maa lay bonsoir yow na def. man maa lay nuyu. pii moo lay nuyu wala ji. eh eh eh ku ma mu xaar ñu daf ñu fekk ci waxtaan. nañu xaar waaw aay jël <laughs> Marietou Marietou. léegi Marietou gars si ñetti cinq yi ban moo dàq ba pare maa ngi leen maa ngi maa ngi nekkoon ah. léegi yow. Marietou Ndiaye Thierry merci Marietou kon yow tey cadeau bu duuf laa lay utal. Ah. Ah. mais kon leen ma Marietou nag bàyyi oh. ma. est que yaa ngi may gis baax am al Mariette waaw est que yaa ngi gis waaw maa ngi de waaw léegi nag ah loo wax non garaaw nga ba pare yow am ah, na gis nga na ah vote bi romb na ah. Ah, ah ok yaa ma xas noonu naan ma américain ok alors Mariette waaw. noo gisee émission bi Marietou balaa ma lay euh, ñëw si région yi. ah émission bi am na solo trop. ça se passe bien noo gisee waa GFM euh, jël décision teral seen ay téléspectateurs seen ay soppe. ah TFM euh, ñoom moom seen télé bi macha allah yàlla na jëm kanam rek. ok si région yi ban région ngay tànn pour ñu may la cadeau fin d'année. ban région. ban région ngay tànn. naa jël Louga Louga loo. ji mooy ubbi Louga. Aba nee na Louga lay jël de. ji mooy ubbi Louga. ok ji mooy aywaay aywaay dee ñu dimbali son waay fii tamit ñu leen di ñaan son boobu ba tey rek ñu seet ay nawle lañu. dee ñu may son may lañu son si table ji. alors ji venez s'il vous plaît. ji mooy ubbi. Oh. Louga ngi nii Louga. aha Louga Louga Luda, Luda, Luda, Luda, Luda, Luda, Luda. Attention, attention, attention, attention, attention, attention. Stop the music, Abba, please. Yeah. Les résultats. Les résultats. ok alors Pi Louga daal xam nga lan moo nekk ci enveloppe. non mais soxna si dal soxna si dal na si de. am nga. am na benn bon week-end à Saly. vendredi samedi dimanche voilà deux personnes. waaw yow wala sa copain am nga copain wala. yaakaar naa ànd. allo. allo. waaw dégg nga sa cadeau bi est-ce que. waaw. nga sa cadeau bi ni mu neexee sa cadeau bi. vendredi samedi dimanche. nga dem sali waaw benn hôtel bu la neex. hôtel de luxe. VIP. ah. am nga bon pour dem Saly d'accord. waaw. léegi kan ngay àndal. parce que bon bi ñaari personne ah. monsieur lay àndal. ah da nga waaw waaw. ok ah, am am na borom kër. waa yéen lu ngeen di triste nii lu ngeen di découragé nii. ah non non man bi de moo doon dundee yaakaar sama caméraman bi moo doon dundee yaakaar naa man lay àndal. ah jërëjëf man sama caméraman bi mu sama waa yow yarul kii am na jëkkër. yemale say bëgg-bëgg ba pare yow ah, yoruloo. ay jëkkoon mën nañ ko jël ci suuf. kon euh, mu bàyyi fa numéro am félicitations ak sa jëkkër. ñu jël leen ci suuf ngeen ñëw bien sûr euh, assister seen week-end à Saly Abba. lii defe naa bokk na si loo yo intéressant tamit. Euh, Saly week-end à Saly ça c'est. c'est Saly da koy couple bu nekk bëgg nga am weekend boo xam ne da ngay dem nga daal di koy passé ak ki nga xam ni moom nga bëgg loolu moom c'est très normal donc ñu koy souhaiter un très bon weekend xam naa ni commencé gul weekend bi sax waaye commencé na ko nii nii parce que yaa ko moom foofu ci suuf yéen tam mën ngeen def kon moom mais fi toll nii ah. fa ñu nekkoon mooy ci réseaux sociaux yi waaw avant ñu ñëwaat foofu parlant de Sali euh, je fais un petit coucou à la maman des jumeaux moo ngi ba Mbour euh, donc en train de nous euh, mention spéciale à tous les jeunes de Mbour yaay Cheikh bisous à toi. mais Aba est-ce que xam nga ne PNG xam nga kan ma leen njëkk a jox micro leneen am. que xam nga loolu. ku njëkk a jox PNG. micro am wax leen. am wax leen. waaw. <laughs> ku leen ko njëkk jox. voilà la question suñu yaay. yaay Cheikh yi. xam nga temps yii sànq ñoo la doon wax ne Kaolack lañuy ñuy yaroo. waaw Youssou dafa doon tëgg benn concert. yu Ndour da doon tëgg benn concert Kaolack. Mm-hmm. sama yaay nag fan su Youssou Ndour la mës a doon. bëgg ko nag temps yi ñoo ngi am defe naa ay 4 ans xaw ma affaire yu demee noonu mu nduroo la ñu mën a pii ñu ne kaa ñu dem si concert yu sunduur nu ñu demee noonu sama yaay moom ko doon tëli nag de parce que man mun ma fàttaliku loolu temps yi 3 ans 4 ans yooyu moom léegi nee na ba ñu demee si concert bi mu téye ñu noonu sur scène yu sunduur gis la fekk ñu nduróole noonu mu wooñu solal ñu ay euh, t-shirt t-shirt t-shirt t-shirt Youssou Ndour mm-hmm. mu ne ñu lan ngeen bëgg ma leen jox ñu nii micro xam comme que pii temps xale dafa gaawoon jooy mu commencé jooy après si laa jël si lañ ma tàllal micro bi léegi comme que man nag dama bëgg sama yaay ma ne ko maman maman maman mu xaar mu leen kon yaayi seex. ndeysaan ndeysaan bu garaaw. ndeysaan ndeysaan maanaam lii c'est pas le hasard tey PNG ñëw teew TFM fii di fi liggéey. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. gis nga oh. jaar jaar boobu est-ce que. oh jaar jaar boobu riche na mais. <laughs> lan moo tax yow nga gaawoon jooy. waaw. xam nga jus moom nii la yàgg mel moom. day day day ruubee rek. waaw kon dañ koy comprendre quoi. man aussi euh, dinaa leen wax tey. ki ma njëkk a jox. Mhm. micro ne ma Aba am. pour nga wax. man tamit bi may nekk xale. Mhm. yaa. Youssou Ndour. Mhm. oui. ñëwoon <laughs> yëmbal. Uh-huh. waa yéen waa waa yéen lan la la ji bi muy wax. yéen eh. Eh, bàyyi leen Abba bàyyi leen Abba mu concentré wu. xam lan mooy problème yow bi jii di wax nga concentré wu di xool ji ak ay bët yu triste ay bët yu yërmande may wax nga toog di ree ba mu téye sa bopp pour lan. pour moom yow lu fekk nga nekk comédien lépp looy wax mais lan laa la def yow ba may Youssou Ndour ñëw na yëmbal concert. Uh-huh. bi mu ñëwee yëmbal concert. pour moom da ngay waaj a léeb nii. waaw Youssou Ndour ñëw yëmbal concert. Uh-huh. waaw bi ñëwee concert bi yëmbal. waaw bu dee am na waaw <laughs> waaw waaw Youssou Ndour joué fa bu neex. Uh-huh. waaw ñu naan ko Youssou Ndour. waaw <laughs> waaw waaw Youssou Ndour. Ah, waaw da ngay lépp mu mar. mi uh-huh. woy ba jàgg mu mar. mu am waaw mu bëgg naan maa dem ca teenu baay soogi yëmbal ca teen ba daw root ca teen ba waaw waaw waaw waaw. waaw <laughs> waaw. yaa def loolu Abba waaw ah. yaa def loolu yaa def loolu jox Youssou mu naan waaw jox ko mu naan. jox Youssou mu naan xam naa ni mu ngi may seetaan nii mais xam naa loolu dina ko fàtte lekk. Ah, loolu dina ko fàtte mais Père Mara Dieng Youssou sax bi mu naanee ba pare. Eh. Père Mara la jox. mais Père Mara naan jox waaw. Kamu Seck. Kamu Seck kan la naan. Kamu. après ci la ni ma booy il n'y a jamais 203 dama indiwaat ndoxu teen damay naan. ma dem waaw ma indiwaat. tàcc leen loolu waaye. <laughs> tàcc leen loolu s'il vous plaît. alors rapidement je prendre quatrième téléspectateur pour wax leen ne émission bi pour yéen la tey PNG dañu jël décision ne tey du ñu invité euh, bien sûr euh, benn artiste. en compagnie de Abba. cadeau yi ngi fi bëri nañu. voilà acca woote leen. voilà gars yi ngi buuxante dégg naa. et puis et puis euh, les jumeaux dama bëgg. mercredi bii di ñëw. Mhm. plus benn artiste bi ñu invité. mais ak benn influenceur benn koo xam ni dañ ko suivre trop trop trop. si réseaux sociaux yi loolu moom faaw ngeen dimbali ma ci mercredi bii di ñëw. benn artiste wala nga xam ne dañuy xool bu koy toj quoi. xool. TikTok xam ni miyaa buñ ko ñaanee. daf ñu koy may ñu xool ñu yëngal TikTok bi aussi tamit c'est jeune quoi il faut il faut ñu def affaire il faut ñu def affaire xale quoi. ayca 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 99 90 je vais prendre un téléspectateur euh, s'il y a quelqu'un en ligne bien sûr euh, euh, Mia. La régie, envoyez-moi un téléspectateur qu'on puisse euh, dire à la demoiselle ou donc euh, sama technicien bi fekkee ne mën nga tijji tamit kii bi man mën ambiance gars yi waxoon nañ leen ko en début d'émission ñu leen ngeen déplacé wu ngeen fekk ñu fii monument de la renaissance ànd ak ànd ak ji ànd ak Abba bien sûr jusqu'à 17h30 on sera en compagnie bien sûr des meilleurs téléspectateurs bien sûr du monde entier ils sont en train de la TFM mon caméraman il est là Gentle Boy ji yes ay waaw émission fashion la émission jeune la moom foog ngeen parce que gars yi fu leen fu leen neex <laughs> yeewu leen du émission wareef. liggéey rek caméraman tey dañuy yëngatu moom tey moom. bouger émission PNG la Abba la. du leen may dara tey. voilà da ngay entraîné mun a ànd ak ñun. bouger kan moo may jël fii kan moo may fii. kan moo may jël fii kan moo may jël fii bouger ku may jël fii ku may jël fii bouger travailler. xale yi xale yi. xale yi. allo allo Tanor. allo bonsoir. Aca Abba ñu jël soxna si. na soxna si. sant rek alhamdulilah. noo tudd. man Anta laa tudd. Anta fan nga dëkk. Sacré waa kon yow Dakar nga dëkk. waa Dakar laa dëkk. noo gisee plateau bi nga xamante ne am nga PNG am nga Abba. waxanaa kontaan ci rek chérie Eva ak chérie Mami. dëgg la ah, sa jabar ci wet bi. ak célibataire bi. sa jabar mami la tudd. waaw eh, léegi célibataire bi kan nga koy utal kan nga koy dencal. waaw xale yu baax yi defe am na ñoo leen yaakaar loolu lu ñàkk mu am fa kenn. <laughs> man dégguma li mu de. non nee na xale yu du ñàkk am na si kenn ku si. célibataire yi daal ñu ngi foofu rek jàkku du ñàkk am na ko mu jàkkaarloo foofu. léegi yow. <laughs> waaw. naka waa Sacré Cœur. waa ñu ngi fi rek. ban la un deux wala trois. trois xanaa fa mu neexee rek. à Sacré Cœur trois. moo dàq. yee lu am foofu lu siiw foofu lan moo fi am lu siiw comme booy wax nit mu ñëw fa far nga koy tegtal. bu ma amee. boo amee ku lay seet si foofu Sacré Cœur trois fan nga koy tegtal comme soo bëggee mu ñëw directement. waaw terrain football baa ngi fi brèche dorée baa ngi fi JVC ngi fi boulangerie jaune yëpp a ngi fi daal bari na. ah foofu la boulangerie jaune nekk. waaw fi la nekk. ah ok kon kuy ñëw foofu koy tegtal. waaw wala terrain football bi rek. ci wetu Auchan bi. Ah? ci wetu Auchan bi. waaw ci wetu Auchan bi rek wala ci terrain football bi rek. waaw c'est que waa Auchan ki leen fi nekkal fii Sénégal sama tonton la. faa mu nuyu ah, waa faa nuyu waa faa mu nuyu waa Auchan. alors euh, waa Sacré Cœur euh, tey dañ lay laajte si région yi ban région ngay tànn pour ñu mun la teral waaw man de bu ma amee Ndar jël bu ma amee Dakar tamit jël. non da nga tànn benn mënoo jël ñaari région waaw xaaral ma jël Saint-Louis rek. xool ba xam nga bëgg da nga ñu dem si da nga bëgg ñu si pont Saint-Louis bi. waaw na ñu dem si Saint-Louis pont bi. ñu dem Pikine. Saint-Louis ah? waaw dem Corniche. dem fépp dem fépp la dem Santhiaba. dem ok dem. aja ubbil Ndar alors Abba euh, euh, bien sûr ils seront là-bas le 27 décembre attention. Attention, attention. Eh, attention, attention. Allô? Attention, attention. Yaa ngi fi ba léegi. Approchez, approchez. Aha. Ah. Uh is here uh, ah abaa nag chéri mami nag nga fexe ba nit filo. what I don't understand what. loo wax ngeen. allo. do you speak oui. do you speak English very well. you speak English. allo. <laughs> Eh, bàyyi leen jàmbur ubbi leen ko enveloppe bi balaa crédit. Ah, waaw ubbi ko garaaw léegi. ayca seen. allo Aba. waaw. waa xaaral Aba tijjil tijjil la sa enveloppe bi. léegi yow dañ la may. allo allo maa ngi alo wi waaw. abaa ah tijjil may nañ la bon bu cent mille francs boo xam ni bon wu obala am nga fi bon bu cent mille francs boo xam ni obala ngay dem mën ko fa jël donc am ma joxal euh, pii mu gën la yaatalal ba mu gën a yaatu cent mille francs boo demee obala nga jël ko fa lu la neex. mu ngi noonu loolu la la ay jouet wala ay lépp am nga benn bon merci beaucoup kontaan naa chérie mami Voilà, ah, merci, merci beaucoup. Alors, gardez ligne bi ñu jël sa Ok, merci à elle, bien sûr. Elle habite Sacré-Cœur, ici à Dakar. Elle vient d'obtenir, bien sûr, un bon de francs. Alors, bon 100 bi, nekkul xaalisu 100 000 lañ lay jox. da ngay dañ lay jox benn bon boo xamante ne 100 000 la da ngay dem Obala soo demee foofu di nga gis ay cadeau yu bëri. cadeau yu jar 25 000, cadeau yu jar 50 000, yu jar 75 000, 90 000. yow ak sa bon 100 000 mun nga jël cadeau bu la neex waaye doo dépasser 100 000. loolu lañ leen di mën a expliquer si bon wu Obala yi bien sûr. ay événement yu mag a mag a mag yoo xam ni dafay xew ci réew mi te xale yi koy xewal ñoom ñëpp nañu xam ne dinañ jàll ci plateau euh, miroir fin d'année bokk na ci El Hadj Keita le 24 décembre mu ngi xam ne moom mooy ca Grand Théâtre El Hadj Keita donc ñu ngi a baax xam naa di ngeen ñëw ci léegi ci Ngaka Blindé waaye ki nga xam ne mooy Aji Ouza le 27 décembre moom tamit mu ngi ci Grand Théâtre bokk na ci ki nga xam ni euh, moom mooy Carlodi 28 décembre muy fête 15 ans yi nga xam moom la def ci musique

dinañ leen yëngal. premier parti. dinañ leen ah yëngal bu baax premier parti. voilà dañ koy tasaare. premier parti def lu ñu neex. <laughs> def lu ñu neex genre exemple li am fii moo fay am donc booy. kese wan leen premier parti wan leen. avant goût. lay yow premier parti lii xew tey xam nga nu mu lay def. waaw bàyyi ma tegal la benn ins nga tegu si. ci pré oh non. waaw <laughs> oh. dégg naa ku mun rab la. yee ana ko sama son fi yëgëri son bi. ayca ñu dem. Mia da ngay dindi tuuti numéro téléphone yi ngay jël dàll yi nag léeg-léeg parce que numéro yi day nëbb dàll yi. léegi léegi tëjil tëjil S bi est-ce que ji est-ce que doom ma ñaanal benn clip bu la neex bu la neexee Niska wala Daju le temps may euh, sama inspiration di ñëw. Euh. après ñu non non non man grawul mën naa ko gérer. mais dimbali ma rek leen ma rek yéen dimbali leen ma rek. <laughs> dan maa amee track nii quoi maa amee il faut ma il faut que ma inspiré wu quoi dimbali ma rek ni nga lancé. mais Abba kii nii kii nii su fa yow dina jooy de. kan la booy bi nii. su fa dawul ak yow dina jooy de. donc euh, sans tarder on va regarder ce joli clip de Dadio comme euh, c'est une émission jeune. Okay. il y a les mélanges. Yeah. Yeah. bàyyi waatal bit bi waay bàyyi waatal bit bi bàyyi bit bi yeah. yeah. maa ngi fi ci monument de la renaissance maa ngi fi. fii ak les jumeaux maa ngi fii Tanor maa ngi koy seen mu def casquette trey pull trey oye oye oye say yeah yeah say yeah yeah yeah yeah say yeah <laughs> Il est, eh. il est pas normal le gars là. Hey, hey, j'ai assuré. Yes, j'ai assuré ah, mais puis. Nekk rappeur bu làqatu nga. dama lan moo tax lan moo tax match mbalax maan rappeur yow doo football si rappeur yi. yow luy loolu yow <laughs> luy loolu. ah. luy fi def dafa des. waaw man yow man yow man je suis un talent cassé. ayca ñu dem ayca ayca ama ayca biit la ñu dem afro. ah ah ah ayca ayca yow nga doon tuuru fii pare nga si xam nga xam nga mbir mi nu mu tudd pare nga si pare nga jeex ayca ah. abaa yow lan nga. séeréer wala wala wala la la man saraxule ayca ñu dem. fii pare nga. man séeréer la man séeréer la yow séeréer la. hey hey hey hey. man saraxule. saraxule <laughs> ah, si ndey saraxule si baay man saraxule laa aja séeréer séeréer aa man séeréer laa séeréer si ndey séeréer si baay yow séeréer laa ani tukulóori ani tukulóori ah. ani tukulóori a jogo yaay soo felu a jogo yaay soo felu <laughs> ee eh, man tukulóor laa tukulóor si ndey tukulóor si baay man tukulóor laa jola jola jola jola ani jola ah naar fi ndey naar jola jola eh ani jola ani jola eh ma jola la jola si ndey jola si baay ma jola Et un. Allez, tout le monde Eh, allez, Gewel. Allez, d'abord. Eh, man, Gewel là. Wow. Gewel, c'est nice. Gewel, c'est nice. Man, Gewel là. Aïe, wa. Eh, man, Gewel là. Gewel, c'est nice. Gewel, c'est nice. Man, Gewel là. Aïe, wa. Eh. Nabi. <laughs> Wow. Nabi. fii avant yi toj fii. mais fii ñu ngi ambiance fii nga nekk di xool ay ndox mu sedd ak ay ndox mu tàng mais fii lu la dal. <laughs> fii lu la dal. non fii gars yi lay woon kala yi dafa mel ni. mais fii foo ne. ngi ah, tasaare fii. mais fii da ngay lakklu. waa Mbour am nañ problème le premier de. cadeau yi bëri na Aba. ah. Aba Aba jëlal ma benn téléspectateur waaye cadeau yi bëri na Aba. mais fii xam nga ñan laa yërëm fii. waaw waa Mbour. waa Mbour. le premier janvier. le premier janvier. mais puis xam nga ñan laa gën a yërëm. Uh-huh. waa Médina. Uh-huh. le vingt cinq décembre. Petit Bal. Petit Bal. boobu narul yomb. avec la MIFA Prince Art bien sûr. ça sera où le vingt cinq décembre. Euh, stadium euh, Iba Mar Diop. Iba waaw euh, entre cinq mille la xale yi ñëw ñu jox leen seen ay mbuus ah def ci ay cadeau yu neex. ah cadeau ay yëf ay ci mbuus yi donc am nañ ay sachet yoo xam ni.

Suisse. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment le nom et vous nous appelez d'où Je m'appelle Marie. Marie, vous nous appelez d'où, Marie À Maris. Tu es au Maris Maris. Ah uh -huh. Ah. Et eh, puis, qui est beaucoup connu Wow. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marie Je m'appelle Marie. Marie, Tu es élève ou bien Marie, s'il vous plaît, Wagner, wàññil sa télé tuuti rek ñu déggante. ok. wàññi waatal sa télé. allo. wàññil sa télé. tu nous entends maintenant. oui je suis une formation en restauration. ayca s'il wàññi sa télé. d'accord nee na puis formation lay def en restauration ah. ok alors Marie. Ah. Marie comme que léegi da def formation en restauration. day wàññi télé Marie il faut nga ah. wàññi sa télé. waaw wàññil tuuti sa télé bi. wàññi nañ ko. nee nañ léegi que mën nañ koo fay. na ko soo ko du ma gis a ah soo ko fayee kon doo ñu gis. Ah, da nga koy vidéo rek ayca ayca kon léegi ma bàyyi la léegi restaurant lay def. léegi samedi xam nga tournoi presse bi foofu lañ koy joué. waa léegi gars yi suñu ah. ba pare waa GFM léegi xam naa da nga ñuy préparé benn soble si yaasa yaasa ginaar mën nga togg léegi. <laughs> est-ce que mën nga ah, togg <laughs> ah. mun naa togg keñ. lekk ay ay li ngay wax nii dafa niin. dafa ah, niin laax rek laax. laax foo <laughs> la pare da rek ngeen wax ma après naa leen ko toggal. d'accord ma bàyyi la ak pii. alors Marie. mu présenter le Sénégal et ses régions. Qu'est-ce que tu aimes d'abord dans l'émission? Comment tu trouves l'émission PNJ et Abba? ah émission bi neex na trop. waaye Abba moom may rey a fecc. Abba lañ ma wuñ ma considéré wuñ alors euh, euh, parmi les régions qui sont là. Ah. ok on va essayer de te de t'offrir un cadeau là-dessus. ban ngay tànn ban région ngay tijji nga bëgg pii tijjil la. maanaam pii nee na ci cage yi nga gis nii nga xam ne ko koo région de. Kaolack Kaolack. Kaolack ubbi nañ ko bu yàgg. Kaolack ubbi nañ ko. ah kon yow perte nga perte nga. Kaolack ubbeeku na. ah ubbi eh, beneen waaw tànnal beneen. ubbi nañ ko Kaolack a ngi nii euh, ubbeeku. Kaan Faan. boobu doo fekk dara Kaolack doo fekk dara. Kaolack loolu ubbi nañ ko ba pare. fan. gars yi coxo coxo nee nañu ubbil ko nee laa ubbi. fan. Matam Matam. ubbi na Matam ok Matam a ngi nii. waaw ma eh yow. da la nga bëgg ubbi Matam yow. <laughs> <laughs> ñu ubbi ah, ma Kaolack. ubbiloo ma Saint-Louis. <laughs> ma ubbi Kaolack ubbi Saint-Louis ñu yegg Matam nga bëgg ko ubbi pour la nga bëgg ubbi Matam. waaw léegi ubbil ubbil lan moo am Matam. <laughs> ubbil Matam ah, ubbil Matam yow. Eh, tijjil suñu son fii ñu tijji Matam ñu xool. ayca alors. leen ñu son bi ci table bi. Oh, oh, oh. Attention. Non, j'y crois pas ça. Attention. Non, j'y wàññi son bi. Ça, j'y crois pas. gars yi lii gëmuma ko cadeau bi gëmuma ko. non xaaral ma ñëw cadeau bi gëmuma ko. xaaral ma ñëw yërnu abaa mais mu yërnu man tamit. non quand même non dëgg lii moom cadeau bi mënu ma ko gëm. li ma gis nii mënu ma ko gëm. ji xoolal. non non. ji xoolal lii. non. Ah. non. Marie Marie. s'il vous plaît non. Marie yow. laa wax. yow eh, may leen ñu may leen une minute de silence une minute de silence ah. yee eh, eh, taxaw leen xam naa dañuy tegalee ma hymne national du Sénégal. xam naa dañuy joxe résultat bi émission bi jeex. kale ko hymne national du Sénégal pincé tout na jàll na pe. Oh! Oh! Marie. aywa gaaw leen boog. yow yaay def nank rek li nga gagné nii ku ko gagné war a xaar. Oh! Marie. Ah! waxal sa kër ñu teg foofu ndox bu sedd. ñu ko bu ma dox monsieur instant kay maa ngi tiit sax te gisul xamaguma lan la. am nga passeport. ah. am nga passeport. Eh, am na. am nga passe xaaral xaaral ñu dem ci hymne national ba pare hymne national. Adja Adja mais ñu son fi mais ñu son fi hymne national hymne national s'il vous plaît. alors regardez un bond de billets d'avion Dakar Paris Dakar. Ouais. Ouais. <laughs> Marie tu vas voyager tu vas partir en France Marie. Marie da <laughs> donc félicitations gars yi ñoo ko GFM kay kay kay. non mais nag de ah, ah voilà mais nag de yow. y a problème il faut mu woote waat. wax la moom la mari ñu mën a jël li nga xam mooy billet avion bi daal di ko koy jox si vous plaît Marie faaw nga woote waat jël sa billet avion. Dakar Paris Dakar. ba Marie du bëri kon. yee. te te te munul sax message yi ne ko man la mari kon Marie yi amee <laughs> amee dañu mujjee wu ñu jël numéro bi te il faut ñu am numéro bi donc mam Marie s'il vous plaît. Uh-huh. woote waatal. Uh, waxaat yow la ubbi waatal uh, li nga xam ni. mooy uh, kii yow numéro Marie affiché wul foofu yow. ah ah ah lañ ma wax de waa Résidé nee nañ ma. ok mujj ñu jël numéro bi. Uh-huh. donc s'il vous plaît bu dee Marie mën na woote waat mu woote waat ñun nañ continuer doxal. en tout cas moom Maris la dëkk waxal sa papa wala sa yaay mu jox la 5000 nga jëndaat crédit euh, bien sûr nga mën a woote. Euh, pour jekkali ah, sa numéro tey tey fii la grolo yi dafa mel ni génn na tey. billet d'avion sax day génn tey. bu ah. billet la Marie gagné billet mën na génn tey. waay yow billet d'avion. si ay caaxaan nii asalaamaaleykum maaleykum salaam man la Maris. Aba sa premier voyage Paris. naa ni ko oh. sa premier voyage Paris. dama dugg ci avion bi di jooy rek. kañ la woon woon afaan la woon dama dugg ci avion parce que je pense que suma juumul c'était Wally Seck bi muy dem au Zénith. de Paris donc euh, yaakaar naa ne mooy sama première dem Paris. c'était en quinze xaw ma 16. Euh, damaa jooy avion bi yëpp. ah bon dama yaakaar ni à tout moment ñun nañu ba bañ <laughs> barki yàlla ma yaakaar ni mën nañoo dem ba ci yoon bi ñu ay panne technique nañ wàññeeku bi <laughs> balaa émission bi di jeex euh, comme que tey dañu waxoon tey honneur aux téléspectateurs bien sûr euh, euh, de la TFM dañuy jëlaat gars yi dañuy jëlaat c'est toujours possible ngeen am ay billets d'avion ngeen am ay iPhone bien sûr ay enveloppe pour mille ay si émission bi nga xamante ne koy wooyee Teranga Sénégal. Sénégal bu leen nar a le mois de décembre le mois de janvier bien sûr ba le 14 février jour Saint-Valentin. mais pour Matam bi pour mu leer ci ñi nga xam ne ñu ngi pour Matam bi mari mi duggoon. dëgg Anne Maris moo mën a dugaat ñu jox ko li nga xam ni moom la moom Matam sinon keneen mënul ubbiwaat Matam s'il vous plaît et Marie bu dee mën na ñëwaat mu ñëwaat le temps man may dem à la régie lu jënd problème bi xam nga fu ñu jëm est-ce que dañuy dem seeti waa Reptile Music Reptile Music il cartonne actuellement il fait le buzz temps yi moo koy tasaare si région yi un peu partout l'homme se nomme tout seulement Samba Peuzzi je suis obligée de te quitter. je ne pourrai jamais subvenir à mes besoins. je ne me vois pas faire notre avenir ensemble. désolée. ayca mu ngi noonu Samba Peuzzi comme ni ko ji waxee mu nekk en exclusivité ngeen am ko ci biir miroir fin d'année ak les jumeaux ak Abba No Stress donc loolu la Samba Peuzzi ah way na de mais xale bi ci clip bi. oh je mérite pas ça xale bi ci clip ah xale bi nga ne nu mel. ah xale bi ci clip bi mooy li booy naan xënee xale bi dafa xënee. dafa lëmoo Pa Omar xale bi dafa xënee. dafa lëmoo comme Nabou Aïssi xale bi dafa xënee <laughs> en tout cas clip bi nice quoi. clip bi nice booy yi c'est très nice ça se voit que booy de chaque mois chaque année ñu ngi ñu ngi innové ñu ngi tooj baar bi donc mention spéciale à tous les rappeurs du Sénégal à tous les artistes du Sénégal bien sûr qui font la fierté de de de notre pays hein donc seen style la donc on a qu'à accepter. c'est leur manière à eux de, de communiquer euh, euh, le monde d'aujourd'hui. Ok, Abba, puis sans que vous ayez des wa Sénégal, mais on reçoit des textos. Voilà, j'ai lire le magnétique message 77244 22. Bach, wa Italie, wa Espagne, wa USA. Donc de recevoir des de textos. Donc <laughs> amuñu chance su dugg. voilà gars nekk France gars yi nekk Italie gars yi nekk Espagne Gambia Mauritanie. te ñu ngi si sànq ba léegi ñoo ngi woote fii. Mhm. donc euh, mën ngeen ñu di envoyé vos textos on va lire ça ñu boole leen si tamit quoi. ayca ci ngeen bokk donc noonu lañ koy waxee lépp ñëpp la donc lu nekk nekk ci nañu xool ki ne ci ligne bi xool lan lañ koy may après ñu daal di xool li nga xam ni moom la ñuy jeexalee. émission bi ay ayca bonsoir monsieur ou madame. bonsoir. allo ayca nañu xool keneen dafa mel ni kooku mujj na génn donc pii euh, pii euh, fi ñu toll nii émission bi ngi jeex mhm. mais euh, clip bu Samba Peuzzi bi da ci bëgg a romb ni rek dem xale bi ci biir piscine bi ak Samba waaw ah, ñu ah waaw waaw Samba ne a ngi siy ñëw xale na Samba jël na xale bi tingoom ko <laughs> wàccewaat ko tingomaat ko <laughs> ah, waaw ngeen bëgg mu romb nii ok ah. sànq ba léegi yéen si ngi siy ñëw mais dafa tombel na tey Eva mu ngi seetaan moom mënu ma si sori <laughs> clip boobu mënu ma si sori waaw bàyyi ba bàyyi leen ñaar ngeen wax si dara. voilà nañu wax lu nu neex mani. waaw léeg-léeg fii boobu lañ koy mën a. Eh, yow ni ngay xoolee kii nag. Eh. <laughs> mani Samba aj na ko de wàccee ko daal di ko yëkkatiwaat tëb tëbal ko daal di koy wàcceewaat après clip bi jeex. après mu jeex foofu. foofu <laughs> kon xam naa sûrement am na suite quoi bu muy waajal parce que ñaari son la génne woon euh, donc mu boole ko génnee teaser bi donc bii xam naa dina am beneen suite boo xamante ne mooy ñëw ko dina am suite boo xam ni moo ci topp donc c'était Abba No Stress ak les jumeaux ci biir li nga xam ni mooy miroir fin d'année puis wala ji euh, ana sa mot de la fin lan la ñuy tàggatoo téléspectateur. voilà donc euh, moi personnellement j'en profite pour faire mention spéciale euh, à tous les employés de CTO donc ça fait un mois et quelques dama amee woon benn fracture. donc euh, temps yi ñoom ñoo ma doon en charge donc ñoo ngi ñuy seetaan sama médecin yi ñi nga xamante ne ñoo doon coaché affaire yi donc dem naa foofu yow soo demee da da ngay fàttali la fa yóbbu quoi parce que da ngay gis ay nit yu feebar mala am yeneen problème yu gën a graaw benn instant yi donc ça t'amène euh, loin quoi donc euh, di di di wax ne gars yi souvent saa ñu yeewoo nañ gërëm yàlla beneen sànni waaw di fàttaliku di di di ñaax tamit ñi nga xamante ne ñoo ngi si dans les lits d'hôpitaux di leen ñaanal ñu jóge foofu ñi nga xamante ne tamit euh, génn nañu àdduna voilà ñu ñaanal leen tamit euh, que le bon Dieu le recueille dans le paradis bien sûr sur ce tamit ñi nga xamante ne si kaso bi tamit di leen ñaanal parce que bëri ñi ñuy tamit ñoom duñu mën a dugg rajo bi on est en direct sur King FM mm-hmm. mais gars yi bëri suivre ne nañ guddi si PNJ souvent yéen a ñuy donc ñi nga xamante ne si prison yi tamit mm-hmm. voilà une forte pensée pour eux quoi ñu ngi leen bu baax quoi donc Abba je te remercie je te félicite pour le

au King Club de Saly. Le 26, on sera à Fatick, bah bah, King Club on sera à Saint-Louis. Le 28, bien sûr, on sera à Thiès. Et le on sera à Kaolack. Il y a deux dates pour Dakar, le 25 et le 31 décembre, au Dim American ba ay eh, gars merci beaucoup sama waa ah. taxaw na borom lunette yooyu sa lunette rafet na trop trop trop ay te nag ñun mooy suñu village fii nag euh, ñu ngi ci monument de la renaissance le groupe Futur Média dafa installé fii euh, pour un mois wala deux mois ñu war fee nekk ak yéen bu ngeen gisee fële seen ngeen fa ngandam maami podium boo xam ne ay concert yu doy waar day am foofu donc dee leen ñu fekk si fii ay concert yu mag a mag a mag ñu fekk si fii suñu biir Sarr merci beaucoup Nabou Aïssi merci beaucoup Of Mbaye Mbissane et Pafal sama waa ji jaa ngeen jëf réalisation Mia. Eh, kontaan eh, nañu bu eh, baax les téléspectateurs. jaa ngeen jëf Drogba nu mu defoon ak Mbappé nii. photo bi foog ñu maye ko da ah? ko doon rêvé ah. da ko doon rêvé. ayca bàyyi